dal ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi baccalauréat atum 2024 bëri loolu ay cas de fraude rawatina nag foofee ci diwaanu Daara Jolof nga xamante ni daal am na ci ñeenti candidat yu nga xamante ni ñoom dañ ñeen a tegoon loxo ngir wàllum yi eh, ki nga xamante ni nag moom mooy eh, administrateur groupe whatsapp ba moom nag daan nañ koy daan benn weeru kaso bu nga xamante ni daf koy tëdd waaye itam ñeneen ñett ñu nga xamante ni daal ñoom la deseloon ñu daal di leen di tëj ku nekk ñoom daal fukki fan ak juróom yu nga xamante ni daal daf koy tëdd ci kaso mu nekk nag mbir mu nga xamante ni laal ren ji nemmeeku nañ ko loolu ci wàllum cas de fraude fii ci diwaanu Sénégal ca Daara Jolof saa itam démb rek am na itam yeneen ñaari candidat yu nga xamante ni dañoo demoon war a def épreuve second tour yi itam dañ leen a daal di jàpp ndax dañoo fekk ñoom la nga xamante ni moom moo di seeni téléphone portable nekki noonu itam ci suri jury 1429 foofee ca lycée bu Mbàkke itam ab candidat la ñu daal di fekk mu yor la nga xamante ni rek moom moo di téléphone portable am moomee sax mu ngi doon def épreuve mathématique yooyu yëpp nag nekk nag ay mbir yu nga xamante ni daal ren jii nemmeeku nañ ko ci baccalauréat bu atum vingt 2024 fii ci diwaanu Sénégal dañuy wax itam ci beneen mbir foofee ci diwaanu Matam wax ab prisonnier bu nga xamante ni daal moom dafa dal di évadé maanaam moom dafa daal di rëcc mbir mi nag mi ngi am fan yi ñu weesu foofee ci diwaanu maatam bu ñu sukkandikoo ba tere ci xibaar yu nga xamante ni am nañ ko gannaaw bañu ñu contacter ñii di. ña nga xamante ni daal ñoom ñooy saytu kaaraange eh, way ña ñañu caabi féete ginnaaw ñoom nag yi ñu ci yàbbeewuñ ci waaye daal xibaar boobu daal jamono bii nii fës na loolu ci diwaanu Sénégal ñeel évasion bi nga xamante ni daal ab prisonnier moom moo ko daal di amal foofee ci diwaanu Matam moom nag sax mi ngi dëkk ci quartier bu ñu naan eh, Subaalo nekk ci diwaanu maatam dañ ko daal di tëjoon nag ñaari atu kaso yu nga xamante ni daal daf koy tëdd moom nag jamono bii nii kenn. tegu ko bët waaye daal ñu ngi koy wër ngir xool ana fan la làkkatu ñu wax daal itam ci beneen mbir mu nga xamante ni daal jamono bii mu di foofee ca diwaanu Kumpentum foofu nag sax daanaka. gendarmerie mi ngi gën a la nga xamante ni moom moo di eh, seeni sécurité ndax foofee nag keddiwaanu eh, Kafountine daal gis nañ ni que eh, gannaaw série d'agression yi nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko foofu ba ñu faat fa bakkanu soxna si di wékki turu Awa ba ñu jàpp ka nga xamante ni daal moom moo def loolu ci ab communiqué daal bu nga xamante ni gendarmerie daal na koy génnee ngir wax daal taxawaay bu nga xamante ni ñoom jamono bi nar nañ koo amal ngir gën a ñoŋal sécurité bi nga xamante ni war nañ ko amal foofee ci diwaanu Kafountine ngir gën a aar askan wi ci wàllum sécurité ci fàttali nag soxna soosee diiti wuyo ki turu Awa Cissé moom nag dañ ko daal di faat ci anam bu doy waar ndax ka nga xamante ni nag moom moo daal di faat ba kanam daal daf ko fekk ci biir néegam jamante ko ay paaka ci ay kanamu doomam ñu dem ca diwaanu ndakaaru rawatina foofee ca diwaanu plateau foofu nag ba tey rek sagar mu ngi xeeñ diggante ka nga xamante ni daal moom moo di jaraafu dëkk ba di Alioune Ndoye nga xamante ni nag moom jamono bi lenn rek moom mooy taxawaayam mooy fexe daal ba eh, daal di yaatal mbedd eh, ville boobee nga xamante ni daal moom moo di plateau ndax ndax commune bu plateau daal foofee dañoo gis ne daal marché bi eh, daanaka commerçant yu bëree bëri dañuy ñëw lal ci ay yoon yu nga xamante ni daal foofee nit ñi dañ fa war a jaar waaye itam ndaamaar yi loolee nag moom moo waral sax moom mi di Alioune Ndoye daal ne moom du mos a reculer ci mbir moom mais ndax lenn rek moo tax a jóg moom moo di fexe daal ba réew mi tegu ci yoon loolu nag. donte moom mooy taxawaayu jaraafu dëkk ba di Alioune Ndoye nag gis nañ itam daal ña nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi nag ñoom ba tey jii rek ñu ngi wëyal di amal ab jàppante diggante ñoom ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy agent mairie yi waaye itam sax yenn saa yi dañuy gis ñi ko ñoom ak force de défense et de sécurité yi dañuy taxaw tem di xëccoo ba violence sax di ki daal di am ñoom commerçant yi nag li ñu jàpp rek moom moo di nguur Sénégal bala mu leen a jëlee ci seen bërëb yooyee il faut que ñu dimbali leen daal ba yóbbu leen ci ay bërëb yoo nga xamante ni dinañ fa mën a amal la nga xamante ni moom moo di seen activité activité dañuy dem foofee ca diwaanu Bambey foofu nag feebar bii di sida eh, bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay gëstukat daal fës na fa loolu ndax daanaka rek lu ëpp daal téeméeri cas ak juróom-benn fukk ak ñeent daal nañ koy nemmeeku foofee ca diwaanu Bambey mu nekk nag. mbir mu nga xamante ni jamono bii daal andi na ti tiitaange rawatina ci waa kër docteur ngir daal ñu fexe daal jël en charge ña nga xamante ni ñoom ñooñi la feebar bi daal di daal waaye itam sax ñu bëri ci ay fatkat daal jàpp ni mbir mi léegi nekkatul danger ndax itam lépp lu nga xamante ni daal ab suivi la jëmale ko ci malade yooyee ñu ngi koy amal. leen rek kay moo des mooy fexe daal ba conscientiser ña nga xamante ni daal ñoom la mbir mi dal ñu gën a mën a maanaam ànd ak la nga xamante ni moom moo di mesure de prévention yi loolu lépp nag daal am foofee ca diwaanu Bambey waral sax ay gëstukat itam ak ña nga xamante ni eh, seen xam-xam yëngu ci wàllum faj daal ñoom ne daañu dugg ci biir askan wi waxtaan ak ñoom waaye itam ngir ñu gën a bàyyi xel daal risque ya nga xamante ni am na waaye itam yenn menaces yu nga xamante ni daal nar naa am ci diggante population bi. ci rawatina ña nga xamante ni daal ñoom ñoo am feebar boobee ne muy VIH sida. dañuy àddu ci mbiru ki fii directeur général këru taskatu xabaar bii di RTS di Pape Alé moom nag démb daal ci alxamis bi ay xibaar yu bëri bëri daal di génne wane nekk kat moom Pape Alé Niang jamono bii nag gannaaw poste bi nga xamante ni daal jox nañ ko ko comme directeur général bu RTS nag dafa del maanaam jël boppam def ko comme médiateur ndax nag ñu ñuy xamal ni que sax moom mii di kilifay këru taskati xabaar boobee di RTS daal jot na gisante ak ki ñu jàpp ni jamono bii moom mooy chef de l'opposition di Amadou Ba loolee nag nekk ay tànku jàmb yu nga xamante ni daal moom am moom mii di Pape Alé mi ngi koy dox diggante moom ak ki fi nekk kon eh, premier ministre waaye itam nekkoon candidat coalition benn Bokk Yaakaar di Amadou Ba ngir daal fexe ba itam jàmm mën a am diggante eh, kujje gi ak itam ña nga xamante ni daal ñoom ñoo faree eh, ci parti au pouvoir moom Pape Alé Niang nag nee nañ sax nëbbul benn yoon gisee gi nga xamante ni daal gisee woon na ko ak kii di Amadou Ba ngir waxtaan ak moom waaye itam daal fexe daal ba jàmm bu nga mu sëkk mën a am diggante ku jéggi ak ña nga xamante ni daal ñoom ñooy nguur gu bees kii nii rawatina ña ko jiite waaye itam sax yemul foofu moom moom Pape Alé dem itam daal bay itam wax ci wàllum impôt yi nga xamante ni daal jamono bii nii ñu ngi koy toppee yenn ci ay kër toskatu xabaar yu nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci diwaanu Sénégal lu ci mën tam daal moom moom Pape Alé jamono bi daal taxawaayu mégateur la taxaw fexe daal ba lépp lu nga xamante ni ñagas ñagas la diggante askan wi ak nguuru Sénégal mu fexe ko dox ba tànku jàmm mën cee am ca boobee jamono nag itam daal ñu bëri jàpp ni que loolee daal moom moo di dëmm rey la jàllale ndax ndax Pape Alé Niang ci ay fan ci ginnaaw sax amul lépp lu nga xamante ni daal deselu ko ka fi nekk ka maanaam ki fi nekkoon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar nekk tey chef de l'opposition muy Amadou Ba ndax nag moom Pape moom mii di Pape Alé bokk na ci ci ñu daan génne ay xibaar jëmale ko ci mouvance bi fi nekkoon lu ci am daal jamono bi daal ñu bëri nag jàpp daal moom Pape Alé Niang leen rek la bëgg moo di képp ko nga xamante ni daal yaa ngi ne rek yëkkati ay kàddu ngir na saxal liggéeyu nguur gu bees bi mu daal di waxtaan ak yow ngir mën a tëj sa gémmiñ loolee nag moom moo nar a nekk taxawaayam jamono bii nii ñu wax itam rek ci mbirum maanaam foncier dem foofe ci diwaanu bi Bignona foofu nag askan wa nga xamante ni daal. ñoom ñoo fa yeewoo gannaaw uh, coowal forêt forêt classée yu nga xamante ne nemmeeku nañ ko fépp ci biir réew mi rawatina foofee ci diwaanu Mbourkat ci diwaanu Bignona itam foofee nag ñoom jamono bii daal li ñu bëgg ret moom moo di ñu déclassifier seen forêt classée maanaam seen forêt classée boobee ne ndax nag ñoom gis nañ ko daal foofu itam daal am na ay nit yu nga xamante ni ñu ngi sanc ci ci forêt classée boobee ne nag mu nekk nag mbir mu nga xamante ni bu ñu moytuwul dina ëpp loxo ndax yenn saa yi dañuy gis ni daal mbir mi dafay xaw a maanaam rax sax lii di ay litige foncier waaye itam sax li ñu gis rek moom moo di ay nit ñu nga xamante ni dañuy jóge eh, ci yeneen gox ñëw sanc ci seen bërëb yooyee ne loole nag gis nañ ko daal jamono bii bu ci nguur taxawul daal dina dem ba daal di jur yeneen mbir yu nga xamante ni daal dafay gàllankoor seen nekkin foofe ci diwaanu na fan yi ñu weesu itam ñu ñëpp déggoon nañu coowal xale boobee nga xamante ni daal dafa daal di génnoon àdduna ñu bëri jàpp nag moom xale boobee daal dañoo jékki-jékki rek gis ko mu daal di dugg ci ab fosse euh, maanaam ci ab mbalka bu nga xamante ni daal dañ ko doon def genre fosse loolee nag nekkoon lu nga xamante ni daal ërëboon na xelu askan wa nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ca def ca région bu Diourbel loolee nag. am nañ ci ay xibaar yu bees ndax itam moom xale boobee daal jamono bii waajuram bu jigéen daal la ñu daal di teg loxo moom nag sax liñ koy toppeere daal moom moo di homicide involontaire ndax itam moom jàpp nañu daal li faat xale bi loxoom génnu ci ndax itam sàgganteem daal ci loolee la bokk ñu bëri itam daal jàpp ni est-ce que itam moom mooy juróom boobee nga xamante ni daal jàpp nañ ko war na mën a takkee ci faatu doomam boobee ne ak doom ni mu saxee ci xol moom nag lu ci mënti am rek jamono bii daal moom yaayam daal nañ koy defeere ca parquet ba ngir wéyal la nga xamante ni moom di enquête bi. moom wajuru xale bi nag jamono bi daal mu ngi desandi ci ay loxo yoon gannaaw nakaru ñàkk doomam waaye itam sax moom jamono bi daal caabi daf ko daal di féete ginnaaw ba ñu xool dëgg-dëgg ana fan la wànnent di mujj ak gëtëm. moom njiitu réew mi nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw téeméeri fan yu nga xamante ni daal am na ko ci bopp réew mi nii ay taskatu xabaar daal ñu ngi xam ne ni que samedi bii di ñëw moom njiitu réew mi dina janoo ak maanaam presse sénégalaise ngir waxtaan ak sénégalais yi waaye itam ñëwaat bu baax a baax ci bilan bi nga xamante ni am nañ ko gannaaw ñetti weer. loolee nag mu nekk nag mbir mu nga xamante ni daal eh, war nañ cee mën a jaare wa expliquer les Sénégalais yi luñ jot a am ci nguur gi waaye itam jéego yu nga xamante ni jot nañ ko def ak itam fan la ñu nar a yóbbu la nga xamante ni daal moom moo di nguuru Sénégal ca beneen pàcc ba itam daal ay woy politique rawatina itam ñu mel ni ay Thierno Bocoum Bougane Gueye Dany ñoom ñëpp nag taxaw temm daal ba lépp lu nga xamante ni gisuñu ko ci lu daal seen xel daal ñu daal di koy dénoncé moom Bougane Gueye Dany sax mu waroon amal ab euh, benn maanaam sorti bu nga xamante ni daal waroon na ko amal euh, foofee ca Grand Théâtre waaye nag loolee dañ ko daal di bàyyi waaye itam daf koy remplacé ak la nga xamante ni moom moo di conférence de ngir wax xalaatam ci réew mi boobu jamono itam daal yeneen gëstukat jamono bi ñoom lañ dénk bopp réew mi yu bëri ci ay diggé yu nga xamante ni amaloon nañ ko loolee kenn gisu ko ba tey lu mel ni appel à candidature yu nga xamante ni waxoon nañ ko waaye dañoo gis ni que ñoom daal seenu ñooñ rek la ñu daal di jël def leen ci seeni ay post yu nga xamante ni moom moo leen neex waaye itam ci fàttali ka nga xamante ni daal moo fi ilimaanu jawriñ ñi diggee woon na fi daal balaa muy nekk président même bu dee sax ay post ministre sax loolee dafay am loo nga xamante ni moom moo di appel à candidature mu nekk nag mbir yu nga xamante ni ba tey daal kenn gisul que ñu daal di jëfee kàddu yi nga xamante ni eh, diggee woon nañu ko moom njiitu réew mi nag samedi ñu koy xaarandi ci ay ponk yu bëree bëri waaye itam sax di xaar ba xam dina wax ci itam coowal marchand ambulant yi nga xamante ni ñoom itam jamono bi daal sagar mu ngi xeeñ seen diggante ak nguuru Sénégal ndax nag jëlee ki nga xamante ni daal jëlee nañ ñeen ki seen ay bërëb bu liggéeyukaay ñoom nag jàpp nañ ko loolee nag injustice dara gënu ko rëy ndax nag jàpp nañ ko daal ñoom ñi itam bokk nañ ci ña nga xamante ni tey jii nguur gi fi nekk ñoom ñi ñoo leen porté eh, ci bopp réew mi ca beneen wet gi itam daal ñu gis ndaw yu bëree bëri di jël li nga xamante ni moom moo di gaal yi di jël mbëkk mi dem ci diwaanu Europe loolu lépp nag ñu bëri di xaaral ni ko ba xam nguur gu nguur gu bees gi gannaaw ñetti weer dina ci àddu ak ak itam naka lañ na a xeexee mbir moomee ba ndawu Sénégal mën a toog fii ci biir réew mi liggéey fi waaye itam mën fee tekkee mbokk yi moo ngi noonu lii moo nekkoon ponk yi nga xamante ni moo gën a fës tey ci xibaar yi di leen jox di daje suba ak jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi.